billahi min alshaytaani fi kulli mawdiin wa fi lawtaani bismi lilahi wa huwa arrahmaanu wa huwa arrahiimu alqaada lil amaanu alhamdulillahi wa salla abada ala alladi bihi lana alhuda abada sayidina muhammadi wal aali wa sahbihi dawina waalil waali laqil lisaani waxlulan minhu luqad waj'alhu daakiran wa shaakiran abad waj'al kalaami raashida wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida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 bu ñu demee ci suuratu salsala ay juróom-ñaar ak juróom-ñett te mooy ñaari ay mujj ya son boroom daf ñuy tegtal dina wax ay jëf ni mu amee solo nga xam ne ne xeebu ci dara te kenn ku ci nekk lu mën a jëf rekk bu ëllëgee dana ci teg bëtam mu mel ni dana dëppoog sunu xikma bi jàll lañu doon wax ci mbirum àdduna nim ñàkkee solo nga xam ne kër mooy àllaaxira kon kër la fay amoon njëriñ nga xam ne mooy sab yóbbal loolee it lu mat a fonk la te loolu mooy ay jëf suñ borom tabaraka wa dafay wax ne képp ko def lu baax ak lu mu néew néew donte dafa tuuti ba toll ne pépp suufit da nga ci teg sa bët bu ëllëgee waaye képp ku jëf ab safaanit lu mu néew néew donte dafa tuuti ba toll ni pepp zarra pepp suufit danga ci teg sa bët bu ëllëgee fa man yaxmal misqaala darratin xayran yara wa man yaxmal misqaala darratin sharran yara ah loole nag day lu ama am solo te ala kulli xaali nit fu mu mën a jaar ak lu mën a dox ak lu mën a lijjanti fa mujj ëllëg mooy mooy ay jëfam Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul dafa masa a wax kenn ci mag ñi ne ndax xam nga léeb yi ñu doon léeb mooy waa ja nga xam ne ne dafa rayoon nit dem ca ñetti xaritam ya mu ne ko waa mu ne ko nett li ko mu ne dañoo wax ne day dafa amoon waaju rayoon nit dem ci benn xarit ba ne ko man de dama rey nit mu ne ko jógal fii man de ba may ànd ak yow rey nit taxut mu demaat ci beneen xarit ba ne ko man de damaa rey nit mu ne ko ah sama xarit nga de waaye li nga def de rëy na léegi nag kaay ma tegtal la yoon woo xam ne ni boo fa jaaree da génn dëkk bi te kenn du la gis kenn du la jàpp génn ànd ak moom ba ci buntu dëkk ba mu tegtal ko yoon wa ne ko tegeel ci yoon wi te daw daal dëpp moom mu dem ci beneen xarit bi ne ko man de damaa rey nit mu ne ko dangaa rey nit mu ne ko waa mu ne ko maa yow de lu ci man di xew noo koy ànd duñ tàggoo mukk loolay dal dañuy dalandoo waaye maa yow nañ ànd génn dëkk bi fuñ jëm ñu jëm fa loolu ñu daal dalandoon Sëriñ Tuubaa ne ko loolu de aw cax la sax dal ne ko xam nga xarit bu njëkk bi mooy kana mu ne ko déedéet mu ne ko xarit bu njëkk bi mooy àdduna ndax àdduna boo demee ba amalatoo ko jariñ dalay bàyyi seeti say moroom moo tax àdduna moom loo ci nekk nekk day mujj boo demee ba doyeetu la dara dalay daal di sànni beneen xarit bi mooy say bokk nee na say bokk boo génnee àdduna danañ la gunge nag ba ci buntu bàmmeel ba waaye nag duñ dugg buñ la suulee daal di wàññeeku. daa ne ko ñetteelu xarit bi nag mooy say jëf say jëf moom foo mën a jëm ëllëg da di ànd Sëriñ Tuubaa jamono bi mu nekkee Mbàkke Kajoor mas naa woo mag ñi ne leen kaa leen ma wax leen bañ ñëw mu leen lislaam de ñett rekk la muy waajib ak mandub ak mu baax daal na xam ngeen luy seen waajib yéen ñu ne ko déeréet mu ne ko xanaa mu ne leen xanaa wàcc lal yi wàññi tëdd bi te dem ci der yi jaamu ji yàlla ndax ku ci dugg ci bàmmeelam di bëgg tëdd bañ tëdd xam ngeen luy seen mën dóob ñu ne ko déere mu ne wàññandiku ndamu yi bañ na démb la woon bis dal na bis la bis la boo xam ne nii ña lañ fay fekki sax yebu ca waxuma la ko xamut dal na leen xam ngeen luy seen mu baax ñu ne ko déedéet mu ne dara dara dara dal ne dara ju njëkk ji mooy yàlla mii de ku xam ci moom dara doo ko mooy ci dara ndax mooy borom qudratu ak iraadatu te bu yëkkatee yaram ba de kenn du ne ko déet daray ñaareel ji mooy àdduna mbii de ku xam ci moom dara doo ko dencal dara doo ko fàggul dara ndax dara du fi des daray ñetteel ji mooy àllaaxira mee de ku xam ci moom dara